auzu billahi min asheytaan rajim waaye inni u'iizuha bika wa suryataha min asheytaan rajim rabbi auzu bika min hamasaati sayatini wa auzu bika rabbi an yahduruni asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu nuyub islaam di jiital ci nuyoo boobu Serigne Touba Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te bali mu naal ci njaboot gi ak xeet week askan week taalibe sëriñ Tuubaa yi yàlla defal ko ko ni mu ko bëggee ginnaaw loolu di nuyuwaat réew mi mépp àdduna si sépp di santaat yàlla bu baax di bëgg a wax ci sama xalaat bu gàtt ci waayu réew mi ndax tolluwaayu réew mi jàpp naa ne ku ci nekk ci réew mi war ngaa génn wax sa xalaat ndax ku ci nekk am na ku lay déglu waaye ñun kenn rek lañuy ñuy déglu muy mun Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu téwér waruñoo wax ndax suñu kàddu ma téwut waaye nag laabirante te yàlla rek a tax ndax ku ne war ngaa jug wax te wax ji dafa war a doon wax ju teggin te mën a doon lu jariñ réew mi ndax nit bu waxee te yàlla rek a tax yaakaar naa dina jariñ réew mi di wax ci réew mi fi mu toll nii ci xew-xew yi fi am ak tawat ji nga xam ni amee na ci réew mi mu doon loo xam ni ni ko sëriñ bi waxee rek yàlla lu am ci àdduna rek yàlla moo ko amal lu wàcc ci réew mi rek yàlla moo ko wàcc rawatina balaa yi nga xam ni moom la fi suñu borom wàcce ku nekk war dalalaat sa xel wara xalaataat bu baax ci sa xel ci yëngu-yëngu yi bañ a topp rekk àdduna rek ak réew mi ndax nit yàlla mi ñu bind subhaanahu wa taala tiitaluñu ko neexoon bu bind ñu sonal ñu xaxatal ñu waaye tiitaluñu ndax rahmaani ak rahimi ba sëriñ bi bind yaa rahmaani yaa rahimu mooy xasida gu tedd googu di rabbi mënees naa wax ne xasida cant la kon yàlla bu la tegee balaa danga nga war a sant ci nim lay defale bànneex nga koy sant di alhamdulilah ma bëgg daal réew mi ñu gën a ànd mbooloo fasu nekk benn rawatina ñi ma ko sañ wax muy sama mbokki taalibe yi ñu doon wenn say tënku ci guum topp ci ginnaaw Serigne Touba mii di sëriñ Serigne Mountakha man da damay wax ci pas-pas ni Serigne Mountakha mii di Serigne Touba nekk fi Cheikh Salihu Mbacké Xaadimul Mustafa mu taxaw ak moom taxaw taxawaay boo xam ni ci réew mi ci liggéeyal ko ci pas-pas dafa topp ndax dafa topp ay baayam toppin boo xam ne rafet na loolu maa ngi koy wax Cheikh Mouhamadul Mourtala mi nga xam ni ci seer ci mooy caatum sëriñ bi kum tudde leer rek muy Cheikh Mouhamadou Mountakha mu Sëriñ Mourtala ñu ngi koy siyaare bu baax kooku war na sa na bàyyi xel bu baax kon nag bu toppee ba topp ay magam ba damay wax ni Sëriñ taxaa bi mu toogee di Sëriñ Tuubaa boo ko masaan a gis mu toog danga naan kilifaam a ngi ci biir loolu lépp nanguk toppe la kon nag bu ñu demee ba yàlla def muy fii Serigne Touba ndax la sëñ Modou Moussa waxoon ni siis bi muy toogukaay bi ku fi toog di jëmmi Serigne Touba la mu waxoon ni kaasub kafe bii ma yor moo moom Cheikh Modou Moussa kaasub kafe bii ma téye nii wax ju ma Serigne Touba waxoon ci ginnaaw te ak si moom laa gën a gëm ci kaasub kafe bi kon pas-pasu murid di foofu lañ war a toll Serigne Mountakha nag man gëm naa ne lim liggéeyal ay waajuram ginnaaw ba mu liggéeyalee maama liggéey waajuram mu tedd Cheikh s magam ju tedd ji Cheikh Moustapha ak mbooleem ñuy kilifaam ci yoon yi ba dem bay Sëñ Tuubaa sun xel war naa gën a dal dara waruñoo këf dara waruñoo xoxutal ba tax sun pas-pas ñu fàtte ko ndax xëy na ay ndaw lan waaye ku nekk euh, bi ngay topp sëriñ bi yàgg na te yàlla rek tax da ngaa judd rek fekk say waajur nekk ci nga nekk ci kon ku nekk pas bi nga am bëgguma réew mi ak yëngu-yëngu yi nga xam ne mbirum àdduna la Euh, euh, xëcc ñu jëme ñëpp benn bor bu dee nag nattu bii nga xam ne moom la yàlla wàcce ni ko sëriñ bi waxee rek nan xam ne lu am rek yàlla la ñu gën a xam ni pas-pas yi adduna waru koo yàq gëm nañ sëriñ Tuubaa gëm koo xamante nii man gëm naa ni bu ak dee ñëwoon taxaw sax noo taxaw waru waruñoo yàqal ci suñu pas-pas dara rawatina nag leneen ak leneen ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ni bi muy dem ci géej gi suñ borom dama suturaal may ma sàq mu rafet ñëpp waru ko rang fa ngir bëgg luñ fa am te dara néew ci nee na ma dem liggéey ba ñëw duy ko ba mu fees di séddale bayta ma yaa maalikal mulki yaa man jàlla an xawadin irham jami xal wara yaa xaadi rada kon mbokk yi na xel gën a dal ci fi ñu toll nii man daal fi may waxee mooy réew mi ñu dalaat gën a santaat yàlla di julli ci yonent bi gën a santaat Serigne Touba ak suñ mag yu baax yi nekk ci réew mi di siyaare bu baax sëriñ Bassirou Mbacké mu Serigne Abdou Khadir euh, ndaysaan moom it taxawaayam rafet na lool ndax nit ñi yoon wi man ni ni doxale mett na ma lool kuy dox ngir Serigne Touba te yàlla rek a tax dinañ la ñi la war a jàppale war laa taxaw ngir ngir nga mën a dox ci li liggéeyu Serigne bi ñoo lay njëkk te loolu du yoon. na ko borom daaru sose woon rek muy ànd takkatoo nekk benn topp ci suñ ginnaaw kilifa lu ñu digal ñu def lu ñu tere ñu bàyyi loolu lan war a doxale kon maa ngi ñaan ñu delluwaat àndaat boolowaat jàppawaat gën a liggéeyal Serigne Touba rek Serigne bi de buñ ci tàmbalee yam ci man gëm naa ne dara lu yàq suñ pas-pas du am te pas-pas muy dëgg bëgg dëggi doomi adama pas-pas dafa am solo ci nit mooy tax li nga kiliteer yi nga jëf ci àdduna nga mën koo souligner ba nit ñi mën a xam ne lii mooy dëgg-dëgg jëf ji nga yéene woon ku xool ci Cheikh Abdou Lahad mi waxoon ni euh, pas-pasam ci Serigne Touba ni mu ko waxoon diggam ak Serigne Moussa Bassirou mu ne Serigne Moussa li may li may nekkee Serigne Touba toog nii euh, am na ci ñoo xam ne bu ma ko doxalee Serigne Moussa Bassirou mi may dem daanaka sama ak satala du ma ko teel gëm gëm gëm Serigne moom Cheikh Abdou Lahad pas-pasam tax na ci yoon wi. booy waxtaan ci mbooloo boo toogee boo boo waxtaanee ba ci yàgg boo nee si yablaat nee na ñëpp den la bàyyiwaat xel ndax oh, pas-pas bi mu amee woon ci yoon wi ak doxalinam kon maa ngi santaan ñëpp di gërëmaat ñëpp di jéggaluwaat ñëpp di baalu xaq di baal xëy na danoo sos waxtaan wi tàmbali ko eh, ñëwoon ci site bi di 24 actu di site boo xam ne site bu am solo la di jàllale eh, loo xam ni actualité la. ngir réew mi ndax it tey jii ñoom seen pas-pas lan lan nekk ndax réew mi nit ku ne sa pas-pas toll ba nga xam ne bu njëkk dañ daa jógee réew ak réew ngir daje ku ne mën a xam sa pas-pasu morom kon nag bu ñu demee ba am réseaux yoo xam ne mel ni 24 at dañ koy man di jàllale nit ñi toog ci seen saal bañ a génn di ko gis eh, di xam ni pas-pas yi nit ñi lii fi ne eh, gën a doon taalibe rek. di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi loolu te di ñaanal sama mag ju tedd sëriñ Abdou Khadir Mbacké mu sëriñ du la suñ borom yokk ay leeram ca bar sàq di ku baax waaw ñu ngi jéggalu lu baax eh, kàddu yi waroon na fee gën a kii waaye xat-xat yi jamono ak ni mu demee rek waaye ñu ngi santaat bu baax jërëjëf.